wala fii ci senegaal dañuy wax ne tey ji mooy feet wala boog moom la ñuy célébrer li nga xam ne mooy feetu euh, xol ñi nga xam ne daal feebaru xol dafay am ci ñoom bis bii la toog di ko jàngataat wala boog ñu toog di ci defaat waxtaan wax na nag daanaka sénégalais yi walla ci àdduna bi téeméeri nit ñoo jël fanweeri nit ñi ngi yor xol buy metti xol docteur yi nag di ci waxtaan li koy sabab ak lii tax mu am ak tan waaye bu ñu waxee xol rek xol yaakaar naa ne dafa doon benn matière bu nekk ci nit moo xamante ni euh, dafa nekk ci wetu dënn bi nekk benn kii bu lunk bu am benn lunk lunk noonu ndax loolu rek mooy xol bi wala bu fekkee ne sunu borom wala lislaam day jàngale xol ndax xol boobu rek moo tax muy wax wala am na beneen xol bu taxaat muy wax jàpp naa ne mën nga ne waaw waaye mën nga ne déedéet tamit du xol boobu rek moo tax kii ndax jàpp naa ne xol lu jara ittewoo la lu jara ittewoo la Luqmaan wala yonent bi am na kon ci wax ne bi mu ko laajee ne ko bi mu loqmaan bi mu kiyee jaam bi bi mu ko reyloo gàtt bi xar mi dana ko demal nga seet la ca gën mu indil ko xol bi ci ndawal nga jox ma ko mu daan ne ko demal nga seet la ca gën a bon mu indi laatal ko xol bi kon xol am na lu muy taxaw ci nit taxawaay wala lu muy taxaw loo xamante ni xol taxawaayam dafa rëy <coughs> ba alxuraan daf ni wax ne yow ma laa yanfaxu maalu wala bannoonu ilaa man xattallaahu bi xalbin salim nee na ëllëg yomal xiyaam amut alal du fa jariñ dara ay doom du fa jariñ dara waaye xol bu set rek moo fay jariñ dara xol nag dafa am doole lool bu dee ci wàllu nit dafa am doole ndax muy contrôler lépp daanaka li ngay bëgg a lekk say bët la koy contrôler xool ko euh, bakkan xeeñtu ko waaye xol mooy bëgg mbir moomu xol moo koy bëgg bu dee lu ñuy bañ tamit xol moom mooy bañ mbir moomu xol moo koy bañ xol nag boo demee ci médecin yi seen seen kii dañ lay wax ne la yenn saa ñu ne la wàññil kaani wala ñu ne la wàññil poobar bi wala ñu ne la wàññil café wala attaaya wala cigarette si ngay tox wala naaj wi wala yu bari ñu wax la ko wala essence bi ngay noyyi yooyu yëpp ñu ne la baaxut ci xol baaxut ci xol yenn saa yi nga dem ci feebar docteur bi dem ne ko dama bëgg nga seetal ma sama xol mu ñëw teg la appareil yi niy seete yépp bi mu seetee ba noppi xool la ne la yow de sa xol bi wax de yàlla gisuma ci dara xol bi amul benn problème amul benn sikk te waajooju fi mu toll mën na xëy yor paaka rey nit wala mu yor fital wala muy iñaan yooyu yëpp kon ak xol dafa am ñaari médecin yu koy xol médecin bi koy fajaat ci lislaam la nekk kooku bu dee ci ñun ñii nag ahlu tasuf yi ñooy faj xol ñooy faj xol ñoom ñooy faj xol dañuy fekk na xol dafay bëgg nelaw euh, ñu ne ko nelaw yi di ko wàññiloo dafay bëgg lekk ñu ne ko dee lekk tuuti dee lekk ay ñetti ñebbe de lekk nangam euh, dangay bëgg waxtaan ñu ne la bàyyil waxtaan wi di la wéetloo moo tax boo demee ci Sëñ Tuubaa day wax ne sumtun wa jooxun wa tawiyun badoo saxarun wa xuslatun an suyo bil xisaaraati loolu ay ponk la yoo xamante ni ahlu tasuuf yi ñoo ko xam te loolu lépp day dellusiwaat rek ci xol taxawaay bi nga xam ne am na ko ci nit euh, dafa am benn nit bu ñuy wax nee naan ab siif la woon sax du woon jullit dafa gaañu accidenté gaañu bi muy laata kii am benn jullit boo xamante ni dafa nekk ci wet gi moom it am problème xol wala kële gaañu am jullit bi am problème xol ñu jël xol ba li nga xam ne moo nekkoon ci siif bi indi ko defal ko jullit bi ñu bari di nattable ndax buñ ko ko defalee di ndax dina doon gëm yàlla gi dina am walla siif lay doonaat ndax xol lu am doole la waaye gis na ne biñ ko defalee xol bi ba monteel ko ko ba def ko waa ji danoo jikki-jikki rek gis ko muy wax naa laa ilaha illallah muhammadu la ñu kon ne xam ne kon mbir mi du affaire xol bi rek matière bi wala dara waaye am na leneen lu tax lislaam di wax xol mu am na leneen lu lislaam tax muy wax xol kon xol lu foor foor la loo xamante ni ndax bu fekkee docteur bi xool na ne la kii de ahlu tasawuf xool la ne la dara nekkul ci xol bi ba noppi nit ki mën a rey nit mën a sàcc nit mën a jël alal mën a fen <coughs> kon am na lu desaat ci biir loo xamante ni du xol bi nu lislaam di wax moo tax lu jar vérifier la moo tax bu nu tolloo fii euh, xol dafa doon loo xamante ni euh, euh, ku la ko gën a set la rek moo la gën te dañuy wax ne jëf yi mu ngi nekk ci xol xol mooy yéene innamal axmaalu bi yi xam nga jëf yi ngay jëf nga yéene ci sa xol ne dama yéene def lu baax dama yéene kii fi mu toll boo gisee boo yéene woon a def lu bon te defoo ko sax yéene boobu nga ko yéene dañ la ciy bindal bàkkaar boo yéenee ne damaa yéenee def lu baax ci nàngam dan la ko dan la koy bindal ndax yéene ji nga ko yéene woon te loolu lépp mu ngi bàyyi ko waat ci xol ba léegi day dellu si xol moo tax xol lu jar ittewoo la bari na lu tardeel nit wala lu gaar yeexal doxum nit li ko yeexal xol bi mu xol bi daf ci yéenewul kenn bu nit amee lu baax mu iñaane ko bu nit bu ko nit bu bu ko bu ko musiba dalee mu yéene ko ko bu ko natt dalee mu yéene ko ko loolu lépp ba léegi xol bi mooy li ci nekk moo tax xaj xol dañ koy faj ci ñaari anam da ngay dem ci médecin bi mu fajal la ko waaye da ngay demaat ci marché médecin tasawuf wala islaam mu sonal la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Seydina Aboubacar amul dara lum leen rawee du julli gu bari du koor gu bari waaye xolam moom moo set xol bi moo set xol bi moom moo set yonent bi jàngale na ba tàyyi nee na am na toog na ci saa ci jàkka ji wala ci jàkkam jooju ne am na koo xamante ni de àjjana ci bokk na ci niti àjjana léegi mu bàyyikoo ci bunt bi ñu gis waa ji bàyyikoo fa ñu toogaat ba mu yàgg ci ëllëg sa yonent bi waxtaanaat ba ci yàgg na am na ñu bokk ci waa àjjana ñoo xamante ne bàyyi ko ci bunt bi bi mu ñëwee ñu dikk ñu gisaat ko euh, Ibnu Omar daal di ne ko man dama xuloog Omar damaa bëggoon nekk sa kër ay fan ba xaw a dal ma ñëwaat ci moom nee na bi mu nekkee moom mu koy vérifier gis ne amut julli gu muy def wala koor gu muy def wala dara waaye nag mu gisu ko dara lu muy def daal lu wuteeg li muy def mu laaj ko ne ko waa yow lan moo lan mooy sa secret. yonante bi dafa am kàddu yu bari yu mu waxoon ci yow mu ne ko amande du julli du koor nangam waaye nag seet naa sama xol bii de moom kenn ku ma ci ëmbal benn benn benn iñaan amut benn benn su ma mayoon dara àdduna la ci biir nanguwaat ko du tax ma mer su ma amoon dara ñàkk ko tamit du tax ma kii mu ne ko kon loolu nga nu rawee man su ma amoon dara tey mu ñàkk ko dinaa ci mer kon xol foofu la moo tax nit ki kuy ki mën a defar dëgg wala mu mën dëgg li muy faj xol lay njëkk a faj ndax bu xol baaxee cër yi ci des yëpp mën na baax li daal benn taxaw seetlu la woon ci xol nit ñi nag ci lañu rawante eh, ci wàllu xol xam naa xataayu waxtu wi ak sama xel xaw na séddali ko dama seetaan télé bi rek dégg ñuy wax ne dañuy célébrer affaire xol ma ne lii de mën nañ cee def benn jàngat boo xamante ni walla taxaw seetlu boobu mën nañoo amal njariñ ñun jullit yi ndax xol dafa bokk ci li nga xam ne mooy li ñuy kondir mooy liy kondir jullit Eh, kon war nan bu mu gisee keneen di ci waxtaane beneen anam ñun war nañ cee waxtaane bi anam ñu ngi taxawlu fii di ñaan yàlla may nu mujj gu rafet te may nu wérug yaram ak wérug diine ak wërsëg di leen fàttali tamit bis bi nga xam ne